wirdu wi lu leeral ne waxtu mu koy def dafa am muxtaar ak daroor yi bu dee suba gi moom bu njël jotee rek njël muy fajar gu jëkk fa waxtu muxtaar wa tàmbalee ba jant bi fenk waaye nag nga def ko gannaaw boo jullee suba ba noppi digganteem ak jant bi fenk moo gën nga def ko ci njël gi nga xam ne fajar fenk gut teewul nag boo dee bari ay soxlaak ay gàllankoor yoo xam ne def ko ci waxtu woowu moo lay gën jàpp ni mën ngaa def ci njël googu digganteem ak bala ngaa julli suba bu jant xasee fenk nag foofu la daroor yu tàmbalee tisbaar soo ko deful nag ba tisbaar jot moom yaay waxtu yépp raw na la muy moxtaar jàll na daroor yi jàll na fay nag bor moo ca des ba tey saa yu takkusaan jotee rek moo xam julli nga moo xam julliwoo foofa la moxtaarum wérdu wi dem na waaye moom it nga bàyyi ba sëlmal takkusaan moo gën def ko njëkk ngay julli takkusaan bu jant bi soyee ñu ne fala muxtaar ma yam fala daroor yi tàmbalee ba fajar fenk boo ko yeexee nag ba fajar fenk moom kon li ñu wax raw dal na la maanaam wérdi wi raw na la yaay waxtoom yépp muy muxtaar daroor yi yépp jàll nañ fay bor moo des saa yu la wird yu rawee rek nga war koo fay li gën mooy nga gaawe fay ga ndax nit xamut ak dundam fu muy yem kon nga jàpp ne bul ne wird wi tudd yàlla rek la dama ko coobare woon di bëgg lu baax defe ne bu la xasee raw du jara fay day mel ne loo nisaroon li ñu wax ne boo nisaree ak topp yàlla day daal di war wird yi boo xasee jël day mel da nga koo nga xam ne saa la rawee rek nga war a taxaw temm ci fay ko kon nag bala nga cee dugg na nga ko teylu bu baax ba boo ci duggee man koo saxal man koo wéyale ak lu mën di am man maa ngi jàpp ne di ko defte ñàkk a matale sart yi ñàkk a matale waxtu yi ñàkk koo fay ca ba nga ca amee bor ak lu mën di am jéemal rek di def kem na nga mane yàlla mën naa def nga am tawfiixi di ko defee nañ ko bëggee ca waxtu wañu ko bëggee ci baaxu yàlla ak ngëneelul sëriñ bi